we know jërë ngeen jëf mbokk yi ñu am mbégte ah, ñëw toog fii eh, ñu ngi ci biir campagne électorale bi eh, comme ni nga xam ne moom la ñu jël engagement Dakar Matin eh, vu que waa RTS dañoo bañoon jàllale temps d'antenne bu Bassirou Diomaye Diakhar Faye candidat Diomaye président 2024 ñun ñu jël suñu engagement personnel ne au moins dinañ may le candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye 30 minutes danten invité ñi nga xam ne ñoo nekk ci coalition ñu waxal ko euh, moo tax euh, tey ñoo am dalal fii koo xam ne du fi gan nag ci kër gi daanaka euh, soxla Maimouna Bousso mbégte la ñuy am di ko dalal saasu la mm-hmm. yaa ngi tenue de combat de fi mu nekk lii <laughs> dama mel ni combat nga jël. comme yow rek ah <laughs> comme yow rek euh, di la di la remercier waa ñu ngi jógee euh, nii ci terrain bi. Mhm. di wax ne rek euh, mënuñu ñëw fii te jaajëfaluñ la. Mhm. lii nga def dafa nekkaat encore beneen don de de soi pour la patrie. day mhm. fekk si le le slogan de du président Ousmane Sonko te tamit lii dafay tax sénégalais yi xam ne liberté d'expression lii lay jëriñ dooleel journaliste ak presse mu am doole lii lay jëriñ. Mhm. parce que quand euh, euh, euh, li nga xam ne moom la ñëpp bokk muy télé askan wi ñëpp yem ci bu ñu la xañee dara. Mhm. am na ñoo xam ni tey bu ñu leen dooleel woon ñu mel ni yow. Mhm. kon tey dinañu am fu ñu jooyee mais tey jooyuñu dara. nammuñu dara parce que comme tu l'as dit. que yéen sax hein? yéen soxla ngeen ko RTS <laughs> yéen boobu ba léegi RTS musul couvrir seen dara di. non xam nga RTS ce n'est pas pour. Euh, l'audimat mhm. wala pour wala pour li muy li muy li mu am ci doole parce que ñëpp xam nañ ni euh, réseaux sociaux yi ñoo ëpp doole euh, RTS mhm. mais dafa nekk moomeelu askan wi te même bu dee benn sénégalais bu toog këram di seetaan RTS jàpp nañu ni war nañu mën a jaar ci moom wax ko sunu programme te RTS mënul sut conseil constitutionnel mhm. conseil constitutionnel moo nangu suñu candidat validé ko. Mhm. kon du RTS sax mo bañ. parce que buñu ñu waxantee rek RTS mom jël na enregistrement yi. Mhm. envoyé nañu équipe technique am ñu ngi leen ci jaajëfal ñom dañuy def seen liggéey. filmé lañu am jox seen ay kilifa. Mhm. mais CNRA. mi nga xam vraiment Bassirou euh, Diagne. mom war na xolaat ndax li way bu rafet la. parce que il est il est fini carrière am jeex donc kon mom mënon na mom ci bopom kiko fa tek sax. tay mu ngi jema a rafetal li fi déssé ci ay fan. kon moom waroon na mën a moom ci jëm boppam mu rafetal mais nag xam nañu tout ça il est fait pour le candidat Amadou Ba parce que ñu bari ñu ngi jàpp ni man gëw ma ni mhm. président Macky Sall am na lu mu def ci lii parce que président Macky Sall foog naa ni directeur euh, RTS la gën a jege waaw Racine Talla ndax Racine Talla première fois may ñu sax ñu dugg ci locaux yi mhm. kon tey su demee ba foofu ñu bàyyi CNRA il travaille pour Amadou Ba voilà donc il n'a qu'à arrêter les sénégalais yépp ñoo yem. RTS nous sommes comme c'est mhm. notre télévision. Mhm. am ba zone connexion mhm. zone yo xamante ni am nañu fa RTS. te ñoo ñun war nañu wax ak ñoom. mais may seen rire, <laughs> jo sais <laughs> man dafa so ba où sont les autres candidats manako ne ndax nga sañ ko laaj. xaaral waaw waaw pënd bi nek pënd bi mom fort na waaw hein? yooyu moom yéen ñi ngeen nuyoo. <laughs> non démb sama nuyoo bi nuyoo bi. non démb euh, c'était vraiment euh, ben benn victoire de, de du citoyen sénégalais. Mhm. yu nga xam ni dañu mus wax ni dañu bëgg dem élection dañu gëm élection am nañ fi ay échauffourées ay manifestations ay ay jiixi jaaxa nit ñi naan nit ñi ñu ñun ñi sax des fois on se disait où est le peuple sénégalais mais ce peuple mature démocratique moom mo génn démb. Mm-hmm. wone bopam woné ni en fait li lañ doon bañ motax wiri wiri bi yëpp te gis nga ni akapes demb li ñu mobiliser won du temps du grand rassemblement. biñ ko fa mm. def. gis nga demb euh, étant donné même notre candidat absent. Euh, euh, euh, le président Ousmane Sonko absent mais terewul la la population est venue répondre te loolu amuñu seen fay amuñu seen fay te xam nañu ni lu ëpp loolu mu ngi ci Sénégal gi dañu xaar parce que nag il faut le le préciser que du Dakar ce que c'est démb région yépp mobilisé mobiliser région yëpp mobilisé wu c' est parce que ACAPES dafa am bayre rek ndax dafa am borom loolu moo tax xëy na mu am euh, euh, mit boobu am démb mais euh, c' est juste montrer la détermination euh, pour la de, de cette alternance léegi Bassirou ñu bàyyi ko ci kaso bi gën campagnal ko wala bu génn ànd ak yéen campagne <laughs> man damay wax la est-ce que buñ ko bàyyee ci kaso bi dóor yi du gën a métti non non fi ñu toll nii moom man ñun jàpp nañu ni Bassirou

parce que sikkim <laughs> <laughs> sikkim ak kii waaw sikkim ak biche du benn mais mais vraiment borom face yi moy mhm. Bassirou Diomaye ñepp xam nañ ko té xam nañ ni s'il à côté dina gëna neex mais gëm naa ni bu gënnon sa dinañ ko may quelques fans mu dàllu mhm. parce que sénégalais yi mhm. tuñu sax ni ab jëm lañuy fal c'est un projet moom la bëgg indi à la tête de ce pays là un projet pour le Sénégal donc c'est la fête partout au Sénégal tous les sénégalais sont des Bassirou. Mhm. te tey peut-être que Bassirou su ben endroit le mën nek. Mhm. alors que il y a des Bassirou partout dans le Sénégal donc nous jàpp nañu ni mu génn ak mu bañ a du ci lenn mais nag dafa ci mhm. ah, mais nous mu ñëw campagne ñun peut-être qu'on espère bu l'apothéose, la bi clôture bi mu nekk à nos côtés euh, ñu ñaan jox ko ah ndax bu bisu ndam li jotee mu nekk suñu wet ñu jubile loolu daal moom mooy li nga xam ne exigence la mais même bu génnoon gannaaw séeréer la te ñemewut koor gëm naa ni dinañ ko ménager tuuti ba duñ ko exposer ci naaj bu bare bi. Hmm. parce que liggéey bi xale yi ñu ngi koy def du ñun de. du ñun c'est vrai c'est les sénégalais qui sont en train de faire mais le travail mais comment loolu xam nga man man personnellement. Mm -hmm hier j'ai failli écraser des lampes parce que je me disais, détermination jeune malgré liñ ci mhm. malgré liñ ci mhm. mais génie, caravane bi ñu topp ko. ba akapes détermination jeunesse Waouh, mhm. waaw euh, Pape allez, ça fait ça fait la chair de poule. day tax nga nous ne euh, mënul changer. réew mënul changer parce que la jeunesse veut le changement. jeunesse bi fini yag nañu nek ci Sénégal ken mësu leen inspiré autant ken mësu leen autant sen bop tey gëm sen bop bobu ñu def mom moo ñu né li il faut mu am au péril de leur vie au péril de leur liberté ñu bari ñu ci kasso bi génnaguñu au péril de leur confort ñi dugg ci géej gi dem ñi exilé wu ils ont tout donné lenn kessé tay mom lañu mën ñun ak wajur yi nga xamante parce que nak

vingt trente dernières années yi du ñu nangu suñ ay doom di ko dund te mag ñooñu nag seen barke dafa nekk ci li ñuy def nii seen hmm. ñaan dafa nekk ci li ñuy def nii xale yi nag yàlla bu yaakaar tas amiin te gëm naa ni yàlla mënta tas yaakaaru ndaw ñi parce que yàlla dafa sédd ay ndaw xale yi amuñu seen fay mais xale yi surtout euh, man c'est ça qui m'impressionne euh, xale yi bu ñu gisee ñun hmm. malgré que bëgg nañ ñu nañ mais ki ne ci seen biir xol ba tax ñun ñëpp ñu ngi koy gisee image am. Mhm. ba ci Bassirou Diomaye Faye muy le président Ousmane Sonko fi ko xale yi teg. Mhm. kóllëre bi ñu koy ji di ko ko woon ci daw di ko ko woon ci woy di ko ko woy ci sonn pour woon ko ne ko yaa ngi tëdd kaso ndax ñun sosal nañ la ndax ñun tuumaal nañ la ndax ñun ñàkk nga sa liggéey ndax ñun. Mhm. mais bu soobee yàlla dinañ ànd ak yow jël réew mi teg ko ci sa loxo jël projet bi fal ko. loolu Pape Alé c'est historique suñuy doom suba dinañ ko jàng. mais nak on est devant notre histoire aussi parce que waxna la sun ay mam demb dañu raté hmm. euh, époque euh, Mamadou Dia nit ñi xalaatoon ni amna virage bu ñu waroon jël ñu luppe ko hmm. et lolu xeeñ dugg na ci bop nit ñi ne dañu bëgg dem ci droite bi parce que depuis bobu gauche la dem hmm. dañu bëgg dem à droite parce que nak bu dul dara sax kumpa waaw ñu xam lu fa am on ne perd rien à essayer on ne fera que gagner on ne fera que gagner essayer avec cette nouvelle dynamique cette nouvelle jeunesse ce ce nouveau Sénégal xam euh, lan mom lañu am ñun ñu sunu dund ñun ñi jàngee Sénégal ñun ñi nga xamante ne amuñu dul Sénégal ñi nga xam ne ci Sénégal la ñu wéeru ñi nga xam dañ leen boddi woon ne leen yéen jàngu leen ay ndongo daara ngeen yéen euh, amu leen nijaayu euh, ministre amu leen bàjjenu ministre bokku leen ci ci système bi amu leen ay ay parrain yéen wékkuwu leen fenn yéen baykat bi yéen nappkat bi yéen sàmmkat yi yéen ñi nga xamante ne wax dëgg yàlla Sénégal bu ba léegi dañ leen fàtte yéen nag ci Sénégal ngeen bokk lan ngeen mënee kay loolu nag la bëgg a prouver may ma nag xam nga su waxtaan dafay leer ma laaj la beneen mbir tamit lu tax ñu war a watal Basirou loolu la ëppale yeneen candidat yi waaw xam nga Basirou dafa spécial ndax lu tax mu spécial mooy ki ñu tànn hmm. te bëgg ko moo ñu ko tànnal déjà loolu mooy premier atout bi Basirou am bu keneen amul hmm, hmm. waaw dina am ñu ne ah kay am na ñett ñu mu tànn déedéet am na yeneen candidat mais moom ci kattanu suñu kado, muy Ousmane Sonko moo yëkkati kàddoom yëkkati vidéo enregistré wax ñu kan mooy Bassirou. Uh-huh. bu ñu gëmmoon sax suñu bët yi dinañu gis Bassirou parce que nag nit ki ku bëgg ki la bëgg nga bëgg ko. Uh-huh. loolu la yàlla dogal parce que moo sentiment de d'amour ak affection dafay propager ou ça se partage. Uh-huh loolu déjà premier atout la bu Bassirou mais au-delà de ça Bassirou dafa am benn benn euh, cursus identique à celui de Ousmane. absolument boo xamante peut-être yàlla moo ko bëggee woon noonu. Mhm. xëy na Ousmane moo ko mag ay at tuuti barewul. Mhm. ndax il est de 1980. Mhm. ndaw la waaye ndaw bu nangu doon ndaw la ndaxte du ndaw rek moo xam ni ci at dafa nangoo nekk ndaw président Ousmane

C'est ci au contraire ñun fekk nañ plus d'une fois mu am ay ñukoy musu recevoir Dakar day taal otoom dem ba njagañaaw ñu fekk ko kon na ci amul complexe ci limu doon mhm. bañ na ko dernière élection yi musul bëgg ah. mhm. ko mu Dakar mais dafa dem ci goxam mhm. pour te dafa ko woon ngir falu parce que il est conscient de li am ci ci milieu rural bi muy problème souf yi nga xamni mhm. ay wajuram ay mamam dañ ko am. mu parce que nek l'image même du prototype sénégalais bu juddu ay wajuram bu ñu dem tol di bay mu gis des agro-industries ay nit ñu am alal ñu ñëw di foqati souf soosu ci loxo askan wo ñu mhm. japp ni basirou mi bis bu falo xamna lan moy inégalité xam na lan mooy injustice parce que ñëpp gis nañ taxawaay bi mu taxaw ci Ndingler. Ndingler absolument ñëpp gis nañu ni mu mu taxee ba ndengleer ku mel na man dugg si. parce que xëy na bu ñu ko bàyyi woon mu nekk diggante njëg Ndingler kese ak waa wa waa waa Sedima xëy na mbir mi du demee noonu mais moom daf ko jël accaparé xeex bi. ba ñenn ñi sax naan affaire politique la alors que du loolu. ndax man dem naa ba foofu maa ngi nuyu góor gi ab lay Dione. di ko wax nag ne ko. <laughs> léegi nag fay jot na. Ah, ah, fay bor waaw parce que ñoom moom macha allah euh, wax nañ ñu sax li xew ci local yi. Mm-hmm. parce que corruption encore moo tax Bassirou amul mairie bi. Mm-hmm. parce que dafa am koo xam ni doom la ci gox bi tey jigéen. Mm-hmm. te yàgg doon financé jigéen ñi am fu mu leen jaarale. mais xam naa ni ñoom ñëpp tey. dadel nañu xamni sen dom mo ñew soxla mais mu nekk aussi un grand inspecteur des impôts mm-hmm. ci formation wam nee naa parcours am ak parcours président Ousmane Sonko nekk parcours yo xamni ne nañ leen méngale mm-hmm. ci administration mu génn ci école yi gëna mag parce que nag tay bu ñu waxee tamit euh, euh, niveau amul niveau bu ëpp niveau bobu mu génné mm-hmm. donc ken ëpp ko lijaasa ci réew mi mais bu paré ci niveau bobu mu servir son pays nekk ci impôt et domaine te Yakoufa, euh, yakufa mhm. yakufa ya kufa ya kufa lenn loo xamante dañ ci au contraire il a travaillé pour que ñu mëna am suñu courant am suñu ndox parce que ñëpp xam ni Sénégal de impôt la. Mhm. kon ko ku fay liggéey rek dañ lay mais bu mu joggé ci tamit il a toujours eu de la fermeté et de la loyauté. Mhm. moi c'est ce qui me marque le plus chez lui moi euh, l'image de cet homme loyal loyal à un projet mais loyal à un homme. Mm-hmm. parce que nak nit ku amul loyauté envers une personne beaucoup de gens dénk réew da ngay am problème loolu mo ñu li ndax ndaxte wax dëgg Yalla pour <laughs> mais de loyauté bi ñu gis envers le président Ablaye Wade uh-huh. mo xéena mo ñu waral li mm-hmm. nit loyauté boobu mooy la différence de Bassirou Diomaye avec beaucoup de gens la constance itam mm-hmm. parce que euh, en 2014 monter un parti politique euh, de l'opposition jiital ci président Ousmane Sonko ak liko dal yépp té dawuloo te bàyyiwuloo nga toog nekk ci ginnaawam mën naa jàpp ni am nga valeur yoo xam ni mën nañ la dénk réew mi te tamit dama jàpp ni aussi Bassirou c'est un passeur. waaw ah c'est un euh, passeur waxoon naa la fi léegi dañuy ah. ubbi bunt bi dem ci fenêtre bi dugal si waa mais am ñoo xam ne ñu ngi ah. commencé di leen sànni ay pikk yu ndaw quoi uh-huh. di wax ne wéy doo ñëw duñu fal kenn président boo xam ne xamul état et en même temps bu toogee lay doo ko jàng lan mooy président de la république. <laughs> waaw xam nga ñun yàlla def ñu dimbale ñu xam ñi xam état ñu dund leen subir leen. Mhm. ba ñun goqi nañu ñu xam état ndaxte bu dee xam état mooy xam nu ñuy sàccee xam nu ñuy luubalee. Mhm. am am xalaatu nu ñuy nu ñuy dëngalee. Mhm. ñun loolu lañ fi bëgg a jëlee. parce que ñun gëm nañu administration. ku ne am nga sa place fi nga nekk def sa liggéey. njiital réew mi tu dois jiite Sénégal waro fi nek pour di lijjanti DG bi ñaata million la la wara indil ministre bi ñaata pot de vin la la wara a sa yoon nekul ci loolu. Mhm. et pour une fois on va avoir un président bo xam yonam du nek ci loolu. tey man ma ma um da féré xam nga day am njuut njaaj yëpp nga xam si gaay wa surtout loolu nek wa parce que njuut njaaj yëpp impôt lañ koy défé wa impôt lañ koy défé ba paré itam mu nek quelqu'un de mënuñu ko corrompre parce que xamuñu ko. Mhm. xamuñu ko.

été eh, borom baax la. Mhm. mais basirou nak fas bi xamaguñu ko. té nak loolu lañ soxla il nous faut aussi pas une dictature mais il faut quelqu'un bu nga xamni rigoureux rigoureux. voilà ah, doo xam dañu né euh, kii dañ koy dañu mëna jaar fi ci mom donc man japp naa ni loolu amul importance parce que dama kay répéter encore euh, euh, ku am basirou ku fal basirou am Ousmane Sonko promotion. promotion ñaari président. <laughs> dégg naa da ngay dugal bi am ñaar. voilà donc dañu japp ni lu Bassirou manqué le rek. Mhm. Euh, euh, Seydina Ousmane dina ko motali ndax lool motax itam engagement bi mat capital té loolu rek euh ndimbalu suñu borom la. ak mhm. pexey président Macky Sall. ñu nangu nangu lepp nangu ndogalu yalla faut fu ci dugalee Macky Sall pexeem la. xam nga pexem la parce que ñun dañ ko néwon falal ñu euh bàyyil président Ousmane Sonko mu mu ñu jaar fu ne te lii waral Basiru ñu tëj ko mooy justice ndax dafa wax ci ñoom magistrat yi seen seen taxawaay te tey euh, histoire jox na ko raison parce que magistrat yi ñoom ñoo war a génnee Basiru fi mu nekk ndaxte Basiru ñoom la doon kaasal te magistrat yi ñoo wëlbatiku àtte Ziguinchor àtte mhm. fii tribunal grande instance ñu jox Ousmane président Ousmane Sonko ndogal mu bokk ci élection yi ay combine tax bokkul. Mhm. kon xam nga mom lim doon wax ci magistrat yi amna na. yàpp il doit pas y avoir les magistrats ne doivent pas accepter keneen di nek à leur dessus bu ñu génnee décision dañ ko wara appliquer. tay bu fekkonté le président Macky Sall fekk si na askan wi ci limu bëgg moy fal le président Ousmane Sonko Bassirou xëy du nek duñu am deux candidats. Mhm. du dëgg mais tay mom néna na wax naa la ko fii fi nga tok néla amul possibilité bu mu ñu teree egg palais bu tëjee bunt bi dinañ jaar ci fenêtre bi dugg ah, suñu nga ko waxee la ko waxaloon ci loolu lañ nekk donc ay pexeem la def yàlla suñu Mais may président Ousmane Sonko mu am dimension de dépassement ba xam ce n'est pas ma personne li ñeneen ñi defoon nërmeelu moom mu ne man pas ma ko def ndaxte kii tuddee na ma doom mhm. kii sonal na ma déggal na ma yónni naa ko mu dem dama koy jox mbir mi mu nekk le passeur du projet donc bu fi kenn am ay xel ma yalla ñaar ak ñett le passeur. un hmm. passeur on lui donne la balle il passe il la garde le temps. que hmm. le propriétaire du ballon se mette à disposition et il donne la balle. ci loolu lañ nek. ci loolu ngeen nek. Inshallah. allah. <laughs> mais dégg naa sax sama benn xarit nee na ma yow yëgoon na Macky dafa rejoindre euh, coalition Diomaye bi man ko man ko ah Macky Macky moo xañ opposant yëpp bokk. kay Basirou taxaw. waaw Macky mooy Diomaye Diomaye mooy. waaw. Je suis candidats avec beaucoup de moyens des milliardaires ñu dizaine ci seen biir def promotion parce que dama koy tere suñu xale yi mais am nañu des moyens. waaw xale yi li nga wax voilà buñ ci ben, buñ candidat buzz. Ben candidat voilà parce que hmm. mais candidats am suñu produit war ko jaay. doy nañu seuk parce que 14 jours la am xawma 13 jours barewul buñu ñu buñu wax kenen candidat buñu ñu romb sax parce que gis nañu ñun ñi tappas sur le terrain. ah bon parce que ñun nak on est la coalition ñun ñoo am ay wujj. Mhm. xam nga nak xëy na kon ñun ñoo jar. waaw ñoo jaayu. waaw parce que on voit que fuñu tuddu ñun lañ ciy boole. ñun ak keneen ñun ak keneen donc bu ñu dugg ci provocation yi nañ jàpp ni ñun ñoo yor càkk bi.

donc si nous à à faire. suñu ay loxo Nous de a faire nous. choses. nous gont Nous sax caravane 10h, lay commencé nous h ku mën faire porte à porte def ko ku marché def ko grand place parce qu'il faut tout faire pour convaincre parce que toujours dina am faire des ne dinañ nañ leen won les leen leader yi mënuñu dem partout. Mhm. suñu leader mu ngi ci diggante. campagne bi moo gàtt. mais bu ñu def promotion kenn ndax yàlla wane na ni ñii fi am ay CV am alal am am lu nek mais tay gis nga suñu caravane bi mu limuy muy dajale ci nit té kenn fayu ci ñaar dërëmu nit. ñun ñi démb on a eu comme cuuraayu dëmm kay waaw les gens sortent de partout ah. man démb les mou les militants force citoyenne yi ma gis force yi ma gis ACAPES dama tiit xam fu jaar yëgalu que nous ko sax parce que nous sax un programme nous mhm. aussi may wax invité nit comprendre les gens nous relancent fan parce que nous avons beaucoup d'affaires. mais nous caravane y a toujours des aléas jusqu'à la dernière minute d'ajustement day am ñu bañ nous bañ Nous mhm. ni bu nous sago programme mhm. rallier les gens ont fait preuve de sacrifice pour nous pour

au-delà de venir rejoindre et d'être devant, que les gens se déploient mmh. Mmh. partout sur le terrain et que c'est 10 jours, 15 jours, yagoul. Mmh. Yagoul. Mais si on ne se donne pas les moyens, on a le vent en poupe parce que la population veut changer. Président Macky Sall, il a choisi un mauvais cheval. Gemotoul le cheval. Il yewil nañu loxo euh, euh, euh, <laughs> adversaire candidat Amadou parce que état la yoron pour di utiliser génnee nañ ko ci état bi il n'a plus euh, nekatul nekatul fofu administration bi on a vu ñi fa xawoon farak mom xeyna na ñu dess mhm. en tout cas ñi nekkoon ci mom ci gouvernement bi génnee nañu len tay ci suba dégg na ñu ne financer wul campagne mom moom malgré que xamna ni amna lu mu jotta a denc macha mhm. donc li wax rek moy même sénégalais yi and ak Amadou Ba nañu xamné li c'est l'histoire

on est obligé seen candidat lan lay hein? doon premier chantier bi lan lay doon xanaa laalaat institution yeeg déjà waaw déjà déjà nee naa leen jërul wax ju bari di di ay programme sénégalais bo fëgg yé ko xamna lan lañ wara soppi ci réew mi waaw di parce que lu dund ci yomb séparation de pouvoir waaw déjà lu muy day yomb mhm. euh, du nek président de parti day yomb parce que mom déjà nekul président de parti waaw ah, donc déjà lolu yalla def nako euh, justice moko ko nena la. Euh, ci yo xamni ni jaarul yoon. devoir de citoyen lolu déjà day daj mhm. séparation de pouvoir day am. parce que le président a trop de pouvoir. le président a trop de pouvoir. té lolu mom déjà bokk na ci sun ay programme diminuer les pouvoirs du président de la République ay waxi kessé nak mhm. parce que ñu bëri xëy yalla yàlla lañ fi def dig mais du ay waxi kessé mhm. ndax lu tax nekkul ay waxi kessé tay quand so gissé euh, Bassirou Diomaye Faye mu ñeu nek président de la République du Sénégal am un vice-président waaw ah, dégg naa mu ci programme mu ngi ci programme am un vice président nga taxaw l' nationale nekk un pouvoir. Hum. et il le sera. parce que hum. c'est de la logique. que ça le sera bu nekk pouvoir bu indépendant nga libérer la justice mais déjà rek sénégalais yi mais wàññil nga leen lu bëri. waaw wàññil nga leen lu bëri. mais xam nga en sécurité sax d'ailleurs nga xam itam yow kopparu Sénégal fan lay duggee nga xam itam impôts yi am na ñoo xam ne dañ leen koy baal te ñoom am nañu ko ndax dañ koy jël di def feneen. Mm-hmm. nga mën impôt yooyu bañ a ci ñoo rëcc te foog naa ni nag ci waa ji lañ dal wala ci gaañi lañ dal mm-hmm. parce que ay nitu impôt la ñuy fal mm-hmm. nee naa la muy Bassirou muy président Ousmane ko ay nitu impo la ñuy fal donc xam nañu fi xaalis bi doon rëccee te foofu dinañ ko fat ba xaalis bi dootu fa rëccee ñu mun ko déjà Sénégal xam ñaata alal lañu war a am loo xam ne amul parce que nag fii ku kuñ fi baal impôt joxe nga enveloppe ci suuf te loolu moo fi war a dàkk donc l'olu déjà. de les remises gracieuses. ça ne veut pas dire qu'on va faire la chasse aux sorcières aux aux, entreprises. parce que non les gens vont travailler correctement parce que ce n'est pas normal Pape allez il entreprise a une moyen moom day fay ki yor ay milliards moom du fay. du yoon nous, mënul nekk ben dëkk développé wul non. Hmm. rééquilibrage boobu dafay jaar yoon. gis naa nag Ben. loo xam ni suñu sag la ñun jigéen ñi bu xaw a tiital suma ay mbokk ñoom Ababacar Mbuub bindal na ma sax euh, message lan la lan ngeen wax si euh, dama bëgg ngeen wax ma li ngeen di wax égalité de genre ak li ngeen di wax euh, ci autorité parentale parentale partagée bi loolu ni on va faire émission spéciale boo xam ni dinañ ko leeral parce que aussi damay joxe exemple rek man j'étais même pas au courant que boole nañ ko ci mm-hmm. mais jàpp na ni jàpp naa ni loolu avancer bu am solo la te japp naa ni équilibré la parce que dama koy jox exemple fenn rek injustice bu mak lañuy réparer foofu injustice bu njëkk bi moy dom. ñaara koy jur. Mm-hmm. te da ngay gis fi jigen ñi nga xamni dañu tass ak seen borom kër. Mm-hmm. war a defar seen dom. passeport ay ñu né il faut l'autorisation il faut l'autorisation du père. amna na ko hein? wax la wax ko live bi ma def et loolu c'était le 8 mars. Mm-hmm. et c'est une femme me ma interpellé. voilà na ma une revendication la te ah man là mais d'accord voilà loolu xam nga D'ailleurs, dara quoi. égalité de genre mais je pense que dans un foyer on nga comprendre que la première chose. Mhm. moi, ci kër. bi mhm. diko waxuñu ni remplacer place au père. parce que père reste un père. mère reste euh, mère on a nos valeurs. Mm-hmm. et notre culture. mais papa dit du du du passeport. Il y orientation jangam te gis nañu sey metti yakku yakku tax day dem ba nga des fois yenn papa dañuy yenn yenn mère je dis pas que ñepp a def. des fois mm. aussi dina am ay conflits am am c'est parce que dañuy bëgg euh, euh, sen doom des ci mais bu papa dafa bëgg mais na mais su bu fekkee do yaay ji mooy liggéey après dinañ wax ci pension alimentaire yi mhm. dinañ wax aussi ci comment comment comment gérer un foyer mais je considère que loolu góor ñépp ko wara bëgg parce que mhm. tey euh, warul mëna nek xalé bi ñu bloqué ko parce que papaam euh, nanguul jox autorisation yaayam ak itam gis nga ce qui se passe dans les foyers tey euh, l'islam limu wax doxaluñu ko mhm. liñu top modèle biñu top aussi toppuñu ko comme il le faut parce que nous top ben modèle social, on dit quand les gens sont mariés, les responsabilités sont partagées, mais on voit ici, dit ñoo xamante ne dañ leen di takk ñu ay après ñu mais Dom yooyu bu ñu leen encadré wul pour ñu mëna a bañ a étude ñu mëna am sen wajuri am euh, pension alimentaire bu doy. Mhm. mais ñoñu à la longue moo indi société bu yaq bi da ngay gis ku ci yor am 15 ans 16 ans xalé bi doo ko contrôler di def naka su nonu mhm. té lolu da indi. Euh, liggéey en jikko yi kon nak mbir ñun ñoko je les invite vraiment à venir dans la coalition ñu waxtaanee ko ñu xamni euh, lepp lu ce sera sur le lit de nos de nos valeurs mmh. et de notre culture mmh. mais en réparant aussi les injustices que les femmes subissent depuis des années au nom de rien du tout parce que si on ko un dîner, ko ci institution dañ ko un déséquilibre parce que nous, la femme sénégalaise depuis l'histoire nous avons un rôle dans la famille Nous ñoo doon jàngal je me rappelle très bien ce moment où nous moo un njàng mi ñoo hmm. Mm-hmm. ñoo yoroon lu bëre mais au fur et à mesure ñu dem ba rocc leen ko bëgg a def jigéen ñi toggkat yi wala jigéen ñi nañ nekk ci li rafet ak lumbu ce n'est pas le rôle de la femme sénégalaise on veut que la femme revienne en premier lieu sans pour autant vouloir remplacer les hommes parce qu'on sait qui on est Mm. Mais on demande quand même plus d'équilibre parce que la parité ça ne tient plus. Parce que la parité à la, euh, au, fin, à la fin y mm. dafay euh, chance ou mm. parce qu'à force de dire on met un homme une femme. les femmes se retrouvent à des positions Ce n'est c'est pas forcément le mérite. Ah. Donc nous, on veut bien aller même renforcer cette parité-là, mais je pense que cette, euh, cette égalité-là, il faut réparer en fait des inégalités qui sont là depuis des années alors ce dernier message booy lancer parce que il faut me bailler la yaa ngi ci campagne bi. waouh. les 30 minutes de Jomai. Waouh, dis nga les 30 minutes de Diomaye li que wax rek mooy di wax euh, euh, nous, ma ko waxee woon démb ñun Sénégal on est un pays magnifique. Hmm. dëkk lañ boo xam ne dafa am lu ñu yàlla hmm. bu dans le foot à Toro tout le monde habitait. Hmm. les colons sont venus avec des problèmes des guerres tribales ñu éclaté mais le sénégalais est magique parce qu'on arrive ci tout cousinage ñu mhm. toujours à reconstituer le Sénégal te ci tànk yooyu la ñu nekk. soxla nañ ko voilà ci tànk yooyu la nekk. cette coalition coalition de la réconciliation la tey euh, amul ay ethnie amul parce que beaucoup de gens veulent faire ça. Mhm. et ci loolu la ñu bëgg a dund te ñun loolu moo tax sax ñun en tant que HALPULA, mhm. ñun ak ñu mel ñun ñom euh, ñom professeur Mary Teuw Niane capitaine Touré ñom Amidou Daat fi ñu nekk ni ñu xam ni dañu am double mission ndax ñun xam nañ liñ doon xeebuñu li ñu doon bëgg nañu suñu askan te xam nañu itam ñun on est les descendants de Thierno Souleymane Baal xam nañu lan moy les dix commandements de ce pays là xam nañu lan moy le le le le suñu sunu sunu sunu légende dañu bëgg taxaw ci suñu légende bâtir le Sénégal de demain Nous bëgg lépp loo xamante ne xeetu la ak i waxante ak yu ñaaw yi fi jot a am ñu effacer ko suul ko ñu reprendre un Sénégal nouveau basé sur des cousins germains entre le Djola, le Sérère le Halpoulard, le Wolof un Sénégal de demain où tout ce qui a été dit dans le passé sera effacé et pardonné mmh. pas comme une fausse amnestie... mais comme une vraie réconciliation mmh. et c'est pour ça que nous avons un challenge de plus

tey bu ñu ko joxee kii di Omar Bassirou Diomaye Faye suba ñu jox ko kii di Omar Seydina Ousmane Sonko gannaaw suba ñu joxati ko keneen Sénégal continuer loolu lañ xam Sénégal continuer amul benn xeetu wiiri wiiri bu ñu fi mën am suñu diggante amul ne do ko bandumisme amul benn wàcc xeet ndax min ko mi haal pulaar ko mi biddo fuura mbeɗa andi hooram kono mbeɗa andi ngo wuro ko sénégal wiyete hay goto wawa sertude yimɓe ɓe mbadden juude joggodiren juude amen jehen yen enen fof mawninen sénégal hmm. par ce que dañu war a liggéey ba duñ fi yenn xeet yuñ fi jot a dégg te mu nekk loo xam ne xajub suñu biir hmm. ñu jële ko fi à jamais hmm. ci loolu la ñu taxaw nag taxaw ci ak fulla taxaw ci ak fayda te xam ni suñu destin ak suñu avenir ci passage bi ñu nekk ci diggante pétrole ak gaz ñu mësul woon dugal seen làmmiñ suñu problème dugal nañ ko seen làmmiñ Hmm. waaw ñi mësul woon taxaw di àtte suñu xeex bi taxaw nañu di àtte suñu xeex bi. waaye hmm. waaye ñun nañu muus. waay waay ñun nañu ñor. Hmm. nañu xam ni du suñu jëmm yii moo intéressé nit ñi. waaye dafa am lu ñu téye loo xamante ne moom la nit ñi bëgg a ñëw jël. waaye nag boo téyee yow sa wurus ñu nga wër ñëpp bëggu ko te yow xamoo ko dangay nelaw nañu xam li ñu téye nañu natt li ñu téye te nañu xam ni li ñu téye luy tax kese mu mucc. moo ñu jë jëlaat suñu réew téye ko ci suñu loxo parce que nag àdduna mu ngi ñuy xool te nit ñi xam nañu ni ñun on est au défi. Hmm. parce que nag moomatuñ sax suñu bopp gis nga xale yi ngay wax ne ñu ne ci mbedd mi ñooñu moom ndax man nii bu ma ñëwut sax. Hmm. wala gisuñu ma benn demi journée dañ may wër.

Euh, euh, sa 30 minutes. Mon ñu gënal 10 heures de temps. Euh, hmm. ci biir ci biir RTS wala feneen parce que lu tax 30 minutes il ay nit yu dëggu di suivre. Hmm. du 30 minutes yoo xamante ne nit ñi dañ koy romb nii boros ko parce que da nga cee bokk. te nag wàccoo sa ànd. Mhm. fa nga ne yaa ngi fa nekk di la ñaanal suñu borom. parce que xeex bi tamit mhm. yow comme soldat nga ci. Mhm. ndax soldat de l' information et de la presse. ci nga tool donc yal na yàlla may la ci ndam. yàlla may ko ndongo daara yi. yàlla may ko ñi nga xam ñoo nekk ci culture bi may ko ñi nga xam ñoo nekk ci diine ji may ko ñi nekk ci école yi étudiants yi ne yàlla may ndam ñëpp. parce que ku ci nekk rek domaine bi nga nekk au soir du 24 mars. di nga xam ne yow li nga xeex lii woon. gañe nga. C'est ñun pour nous gagner, gagné Sénégal mooy gagné. absolument On a à très très bientôt. à très bientôt toujours un plaisir partager un plateau avec euh, Maïmouna Bousso euh, je pense que nous sommes hein, c'est les 30 minutes de Diomaye on reste focus. Euh, sur le combat pour le Sénégal et le devenir du Sénégal c'est très très très important damay wax ne campagne bi du campagne combat là, combat dañuy que c'est li ñu résister 2021 <laughs> ba bakkan rot na fi martyr bari na fi amul ben sénégalais bu war a dellu mu ngi won taxaw sax daa bu gis comme gis tenue de combat bi. Hein? de combat parce que xale yi gis ni tenu bi hein tenu de combat la nekk. parce que c'est la guerre c'est c'est les dernières tranchées. donc euh, vraiment il faut il faut pas partir des lignes. xam nga so so guerree ba taxaw ci ben combat bo bàyyee touti rek naan maa ngi dem naani ndox. non non gars yi voilà boo ñëwee fekk gars yi les frères et les sœurs donc il faut tenir. tenir alors nous allons tenir inchallah jusqu'au 24 mars. leen dig ci kanam tuuti moom damay siq ak yéen waxtaan ha ah, benn live bu am solo incha allah à très bientôt.